sotti Ablaye Wade bi man rafetlu naa ko de peut-être dafa yéex a am sax ndax euh, moom li mu woote noonu ñun ñoo ko war a njëkk a woote ñun citoyen ndax mënuñoo jël suñu xaalis dugal si ay carte d'identité biométrique jusqu'au une semaine wala cinq jours des élections nit ñi mënuñoo am seen carte d'identité loolu dafa waral dëkk bi war a génn woon ni président na sot ndax suñu xaalis lañ def rek d'identité biométrique plus des milliards et des milliards yu def ko si cinq jours nit ñi mënoo leen jox seen carte d'identité mais c'est normal nit ñi ñi génn ndax ay élections lañ jëm foog nit ñi jot seen carte d'identité pour mun a exprimer wu te voix boobu dong la ñu am pour mën a exprimer si dëkk bi loolu laa ko gisee. Abdoulaye Wade moom mun naa ne lu mu def nekkul loo xam ne wareef la ndax du wareefam ndax mag nee na ne boo jiitee dëkk tey dafa am loo xam ne yaa war a def loo xam ne ñëpp si yow lañuy xool ndax mun naa ne loolu noonu bu ko defee nekkul wa lu war si moom ndax tamit. ay xale ñoo nekk si ginnaawam te mag bu demee bay def loo xam ne ay xale ñoo nekk si ginnaaw du xool si yow te yaakaar naa ni waroo jiite loolu ndax nguur moo ko tere ndax nguur bu ko teree warul def tamit lu nguur dogal ndax tamit moom bu tey ba mu jiitee dëkk bi am na yoo xam ne bu ko teree woon kenn du ko am fit pour def ko. waaw bon comme dëkk bi moom nu mu demee rek politiciens yi moom ñoom ñoo ko yem kii day wax baax na kii wax baax na Abdoulaye lu mu wax droit la mooy ne nit ñi war nañ jot seen carte ñee tamit xëy na fi ñu waxee mooy ne bëgguñu dëkk bi yëngu Sénégal ñu ñëpp ñoo ko bokk ku nekk euh, def ci sa wàll rek ku war a gañe rek mooy gañe bu soobee am. moom Abdoulaye Wade moom def na li muy def ba pare. dafa war a dem toog bàyyi ay doomam ñu yeggal li ñuy def vraiment bu dee daa bëgg a dugal doomam nag moom nañ ko bàyyi kon mu def li mu bëgg a def mais man moom gisuma man ban raison la am pour ñëw di naan day politique ak ñoo xamante ne politique na moom li muy def def na ko ba pare kay mun na dem toog man loolu moo ci nekkoon sama sama sama sama wax bi may wax ndaxte man bi ma déggee ne Abdoulaye Wade ñëw na man dafa ma jëlee kaw man foogoon naa ne day toog rek moom di déglu affaire yi nu muy demee nekkte moom day ñëw di moom lu ci yoonam ak lu muy politique man daal lool laa ci xam man suma ma sañoon daal moom day dem toog bàyyi doomam mi ñu yeggali seen liggéey Sénégal jam kanam. waaw Abdoulaye Wade bon vraiment man du ma ko blâmer ci wàllu politique quoi surtout xam nga parce que il était quelqu'un boo xamante ne ni ñëpp ràññee nañ ko fii Sénégal xam lu mu fi deful amul quoi peut-être âge bi la gars yi di wax mais pour ma xamal sénégalais yi que ne politique nekkul métier boo xam ne dañ ci retraité quoi nit mun na am cent ans. di politique parce que tant que yow yaangi nek ak sa xel rek mën nga def politique. kon marche boobu Abdoulaye wad def man d'accord na ci wa c'est que na xam nga nit ñi dañuy def ni lu ñuy wax rek ñu yakkar ni politique la waye tam dafa am lo xam ci ni citoyen bi mom moko mom wa comme ñun suñu carte électeur rek lañ mën a am pour pour pour tan li ñu ki ñu bëgg fal donc carte bobu suñ ci mënta jot lepp luy waral ñu mën ci jot wala euh, état bi dégg ñu xam ni manam loolu lu ñu soxal la loolu man d'accord na ci ak